ñëw ba ba affaire bi xaw a wàññeeku tuuti quoi. waaw loolu la ñu ñëw waaw. waroon na. waroon nañu ñëw xaw na yàgg tuuti ah tuuti rek na mais kii wul noonu quoi. sorewul noonu waaw sorewul noonu waaw. ndax am na ndax am na un na après bi dema wote on rendez-vous quoi min jofuma rendez-vous après avant avant rendez-vous bi fekke ñu tëj fii quoi waaw avant rendez-vous bi avant rendez-vous bi parce que dama woote woon jooma rendez-vous mercredi mais avant mercredi bi fekke tëj nañ fii quoi loolu loolu moo tax woon ñëw ñëw ñu ba ba léegi. que encore diggante bi encore terewoon wala non non terewul ñun liggéey quoi terewul ñu liggéey moom. waaw ñu ngi ñu ngi daal ñu ngi daal waaw gars yi jàpp ñu ma jàpp ñu mu kii affaire loolu quoi jàpp ñu ñu. non non. voilà léegi instant yii na damaa ñëwoon keroog ñu woo ma ñu ñoo ma ñu ne nañu indi léegi oto yi ma indi oto yi le cinq ba passé quoi. mu ah. passé gis nga qui bi lañ ma dabong amortisseur benn amortisseur moo yàqoon quoi te boobu ba pare baa ngi ñëw tey pour